seen combat Seny Sembène moom Seny bu bari ñi ak Modou Sarr bu koy xem te Modou Sarr bu koy xem moo ñu wan ginnaaw mook Seny bu bari ñi mooy nuyu waa bari ñi yëpp wiis maa ngi lay bëggee nee na ñun biir aareer la ñu di si waaw waaw sàmm nga sa bopp seeni daan na la laa ilaaha illallah xale bari ñi bi bàyyi leen ko xel ngembam lii eh du ngembul ko de